presse nationale internationale maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu seen taxawaay di kontaan trop heure bu ñu wootee yéen ñëpp ngay ñëw pour taataan si li nga xamante ni moo war a jëm ci askan comme ni ko la porte-parole Demba waxee nekk coordonnateur régional sur la parrainage ñu ngi koy remercier ci taxawaayam bu rafet. Mm-hmm. coalition bi nag comme ni nga ko xamee mooy la coalition nekk fi askan bi kii nekk sama wet mooy monsieur Diouf dafa yore parti politique boo xam ne dañ ko reconnu ko état ci coalition bi la bokk récépissé tey bokk na si yi nga xamante ni moom la coalition bi am pour que mën a dem déposé pour bokk si ñi nga xamante ñooy joxe di rafetlu bu baax a baax moom ak yeneen parti yi nga xamante yëpp dëgg nañ coalition bi ak ay mouvement politique yu toll si soixante-dix pour le moment yoo xam ñoom ñëpp adhéré nañ ci li nga xam mooy coalition bi ba tax ñu jël suñu feuille parrainage nga loolu nag bu amee fan yëpp ku ne gis na nga xam moo am ci situation sur la parrainage deux cent trente partis ay candidats yoo xam dam nañ tey essayer pour jële li nga xamante ne mooy ay fooy parrainage pour ñi dañoo war a nekk ay candidat ci 17 millions d'habitants pour man loolu dafa ñaaw ci démocratie dafa ñaaw ci république dafa ñaaw ci loo xamante ni tey lu sérieux la loo xamante ni askan wee ko war a joxe te ki mu war a nekk koo méngoo ak ki nga xamante ni moom la askan war a tànn waaye rek tey da lay wane ni Macky Sall mi nga xam mooy jiitu réew mi moom si boobu moo fayee bi nga xam mooy président de la république moo fayee république bi ba tax ku jóg ku nekk tey nga ni war naa mën a jóg laaj yi ñenn si bopp moom moo leen cautionné pour ñu mën a dem jëliñ say fiches loolu moo tax ñun ci li ñu yoon may bi nga xamante ne assemblée nationale convoqué na samedi lundi bi ñu ubbee ñu ñooy ki njëkk déposé li nga xam mooy proposition de loi modification code électoral modification électorale bi nag dafay viser li nga xamante ni maanaam moo nekkoon ci mille constitution bi 11 mai 2018 loi numéro 2018 14 sur la parrainage citoyenne li nga xamante ni aussi moom la waxaat ci li nga xam mooy loi bi ñu modifier ko ci li nga xamante ni moo nekk 2023 bi passé muy modification bu mujj bi jëm ci li nga xamante ni moo nekk léegi parrainage citoyenneté plus euh, parrainage la maire élu ak li nga xam mooy député loolu nag bi ñu ko seetee ci modification boobu noonu dañu léegi ci article cinquante sept alinéa quinze et dañuy proposé léegi képp ko xam ni da bëgg a jël fiche parrainage da lay ak caution caution boobu nag ci biir proposition bi dafay nekk maanaam montant boo xam ni arrêté moom moo koy fixé comme ni ñuy fixé caution bi nga xamante ne mooy participation de élection pour candidat ci bépp élection boo xamante ne dañ ci laaj parrainage caution boobu aussi dañuy wax ci biir loi bi buñ fekkente ni déposé nga ko nga dem jël fiil parrainage boo mëtul parrainage bi lay laaj da ngay perte boobu loolu buñ ko defee dañ ñu gën a segg ñi nga xamante ne jàpp na ñoom dañuy dem rek pour jël fiis wane ni ñoom ay candidat lañ te fekk ni dañ ko jël pour saboter wala pour yàq ndax li si aju dafa bari te ñun ñi nga xam dañoo nekk assemblée nationale xam li xam li nga xam moom wax wati woon ci loi bu mujj bi deux cent trente candidats yooyu tey bu ñu jëlee seen parrainage ba déposé conséquence nag candidat yooyu benn candidat bu si ñàkk bakkanam Macky Sall day dàq élection yi conséquence mooy yi ñaari at ba juróomi at kon yaakaar naa ne loolu dafa sérieux te nit ñi xamuñu ko te deux cent trente personnes kenn ku nekk kenn xamul kan kan ku nekk lan moo ko dal kon yaakaar naa ne loolu am na leneen loo xamante ni war nañ ko xoolaat si biir beneen bi mooy candidat yooyu képp koo xam ni tey dem nga jël sa fiche parrainage ba noppi nga dem déposé ko si comme ni nga ko waxee boo génnee àddina conséquence dafay dàq élection yi sans délai mën na ko yóbbu deux cent mën na ko yóbbu cinquante amul limite ci réew mi Serigne nag loolu man jàpp naa ne war nañu ko bàyyi xel te ñu si baree bari Macky Sall moo nekk seen ginnaaw loolu aussi il faut que nit ñi bàyyi ko xel kon loolu moo waral ñu déposé li nga xamante mooy proposition bi moo nekk nii daal leen ko jox. di xaar assemblée nationale mu addu si ni mu gën a gaawee parce que pour suñu proposé loi la boo war a modifier li nga xamante ni mooy code électoral bi yoon moom ko sam def naa ko di si séntu aussi loo xamante ni mooy njariñu askan bi parce que tey askan yëpp xam na ni tey lii mag Sall teg muy ay anam yoo xamante ni tey dañuy seet ñu leen neex ñu bëgg leen a génn ci ay liste électorale wala ñu bëgg leen a xaj li bokk ci élection yi kooku pour man comme moom jeexal na amul sañ-sañu tey di contrôler wala muy seet ñii wala ñeen loolu nag bokk na si li nga xamante ne moo waraloon proposition loi pour mu wax leen ko mais depuis démb ci lënd eh, bërki démb ci lënd bi lan déposé ndax samedi lan ubbi dimanche liggéeyuñu waaye lundi dépose nañu ko ñu ngi si table président assemblée nationale fii may wax ak yow pour que ñu war koo ad ñu war see waxtaan fii ak semaine bii ñëw bu neexee yàlla pour que ministre de l'Intérieur ñëwaat assemblée nationale pour ñu modifier li nga xamante ne mooy côté électoral. deuxième point bi mu jëm ci mbirum Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko. fan yi si ginnaaw gis ngeen ni ko waa DCI def sukkandiku ci article deux cent trente deux cent trente et un deux cent trente deux ci code pénal ndax ñoom dañoo jàpp ni ku ñu condamné contumace automatiquement dañ lay rajo sukkandiku aussi tamit ci article euh, vingt huit ci li nga xam mooy code électoral waaye contumace buñ la xasee ba téye contumace bi day jeex te ku ne xam nañ Ousmane Sonko dañ ko téye kon contumace amatul. loolu moo waral bi nga xamante ne jëf nañ jëf jooju te jot ndigalul ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur jot ndigal ci président de la république ngir ñu bañ a jox Ousmane Sonko ay fiches de parce que administration du def lu mu laajul ndigal bi mu demee lañ ko wax mooy dañoo jot suñuy erreurs yi mënul leen a jox fiche parrainage parce que lii ñoom tamit avocats dem fi nga xamante ne fa la mbax na doon benn muy tribunal de Ziguinchor déposé fa li nga xamante ni mooy pour que ñu annuler loolu yàlla dogal na suisse bi nga xamante ne mooy si Samba Faye def lu am solo loo xam ni histoire dana ko marqué ci courage am ci détermination ci wax ngir dëgg ngir yàlla te xam ni lépp day jeex mu ne lii nga xamante ne moom a la administration bi def tegul si yoon kon Ousmane Sonko nañ ko delloowaat <coughs> mooy ak ak yelle ñu di ko rafet bu <clears throat> lool nag day wane ni ba tey am na ay siis yu fi nekk yu pare pour dox dëgg defal yoon pour que avenir Sénégal jëm kanam loolu nag bu amee ñu ñëpp tey képp koo xamante yaa ngi woote démocratie si réew mi woote justice si réew mi yaa ngi tàmbali xam ni justice baa ngi tàmbali waat naat di wane li nga xamante ni moom lañ ko doon bàkki loolu nag am na ñu koy rafetlu di wax état lu mu gën a gaawee na jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage parce que yoon moo dogal beneen bi di ñaaw lu taxawaayu ascenseur sur l'état parce que ascenseur bu demee tey ba Suisse bi jël décision moom muy contredire Suisse boobu noonu ngir bëgg-bëggu Macky Sall yow yaakaar naa lu ñaaw la te ku ne xam na ni ascenseur sur l'état état la fi nekkal ndax ñun peuple bi Ousmane Sonko day demande social si ñun pour mu nekk candidat ndax ñun lu ñu soxla man bu ma dee nekk candidat jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñëpp war nañoo nekk candidat ba ëllëg bépp koo xam ne gañe nga danaa dañoo génn diw moo tax nga gañe kon demande sociale la Ousmane Sonko nekk day nekk candidat par A et par mu leer Macky Sall du moom mooy téye Ousmane Sonko pour mu bañ a nekk candidat mi ngi aji si peuple bi te lim leen war a defal yëpp defal na leen ko kon peuple boobu nag moom moo si des pour ñoom ñu dellu njukkal Ousmane Sonko ñun liñ si war a def ñu ngi koy def depuis deux mille vingt et ba tey ñu ngi si côté pauvre bi bu nekk si côté pauvre nekk nañ si côté ndax ay gor la du ñu fàtte dem suñu mbokk la suñu xar la te askan wi ñoo ko yóbbu fi mu nekk comme ni ma jóg man fi mu nekk ba ko mu tudd xam xam ñu ñu xam kon loolu bokk na si li nga xamante ni mooy dinaa ko wax mooy Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom la doon dund tey ñëpp mën nañu jàpp ni candidature am kenn laa la wax fii may wax ak yow amul benn yoon ba ni suuf bu taxaw pour baare candidat Ousmane Sonko bu suba doon élection day bokk te ñu ngi ñaan état bi jël ay responsabilités am ci li nga xam mooy décision justice pour Ousmane Sonko mën a bokk comme ni ma doon li am assemblée nationale aussi pour ñu wax si ginnaaw bu ma ñaawloo taxawaayu assemblée nationale en tant que institution li nga xamante ni mooy li am ndax assemblée bi ñu convoqué ñun 9h30 fekk nañu fi bi ñu demee. groupe parlementaire liberté et démocratie changement bi ma bokk président Mamadou Lamine Thiam jiite ko ñu def réunion ci juróom ñu ni ñun ñi nga xam ñoo bokk si groupe parlementaire bii de am nañ fi ñetti candidat Karim Wade candidat la Cheikh Abdou Bara Dolly candidat la Mamadou Lamine euh, Diallo candidat la waaye comme ñun ñëpp ay góor lañ te ñoo àndoon wutee ndox fii ak juróom benn weer ñu de duñu tàggoo nañu maintenir li nga xamante ni moo nekkoon suñu groupe kenn ku nekk poste responsable bi nga amoon ñu bàyyee la ko ba ëllëg lu yàlla dogal ndax kenn ku nekk danga soxla sa moroom ëllëg loolu moo waral ñun ñu ba def noonu bi nga xamante ni loolu am na man ma dem ci secrétaire général bi fekk fa la liste Yewwi Askan Wi fekk bu ma leen laajee ñu ne ñoom ñëpp signé nan muy cinquante 53 membres pour Yewwi Askan mais bi loolu amee ñoom déposé wu li nga xamante ni mooy seen bureau ndax mën nga déposer li nga xamante ne maanaam mooy ñi bokk ci groupe parlementaire mais bureau bi en général boo si bëggee def loo xamante ni méngoowul ak li nga xamante ni mooy yoon da ko tardeel te comme boobu ñoom ñu ngi doon waxtaan seen biir te sotteegul moo tax que tardement bi am diggante Yewwi Askan bi ak Taxawu Sénégal ñoom ñoo boole ci Assemblée nationale c'est rappel Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal dix ba dix-huit ñoom ñoo tax que bureau assemblée nationale taxawu man rus naa wax lu dul dëgg parce que assemblée nationale nag bii mooy sama deuxième mandat te xam naa lan mooy assemblée bi nga xamante ni ñu ngi waxtaan ñun wàllu ñu xamal ni ñu waa taxawu senegal bëgg nañ buñ leen génnee ci yeewi askan bi ñu ñëw ci ñun man maa wax ci biir suñu bureau maa ngi leen d'accord ba si taxaw senegal ñëw bureau wàllu su ne fii si copi gërëm te dama ko di ay anam yu leer parce que nit koo àndal kere yeewi askan wi tay nga mën koo wor ba ko ba mu lay génne bu ñëwee si yow tam dalay yàqal mooy benn ñaar ma ne duñ fi ñëw parce que tey bi ma bëggee dugg yeewi askan wi fa Sall mii ak Habib Sy ak waa Pire ñoo ma boleke ni ma doo dugg yeewi askan bi te loolu askan Sénégal du ko fàtte te du ma ko fàtte du ma leen ko baal ba mukk te lii Ousmane Sonko day wane ni la ma ko waxoon ci saalam dëgg la parce que ñi muy àndal bëgguñu ko ndax ñi nga xamante ne bu xeex jotee ñoo war a ànd ak moom xeex ñëpp Khalifa Sall Habib Sy Youm bu Pire dañoo fexe ñoom ñëpp ñu xàjjale ko ak moom bàyyi ko mu wéet loolu moo war xeex gi ñoom dugaloon seen loxo Ousmane Sonko wéet fii nga xamante ne mooy ab xeexam lii yàgg nañ ko def yàgg nañ ko toog kon tey bu fekkente ni dem nañ tey ba si maanaam assemblée nationale ay post ñor leen ngir que seen intérêt bopp bañu xool intere Sénégal bi bañu xool askan bi amoon si ñoom yaakaar loolu yaakaar naa gàcc la ci li nga xam mooy coalition Yewwi Askan mooy coalition boo xamante coalition naxante la coalition boo xamante ni ña fa nekk ñëpp PDS la newoon parce que tey tey yi ne coalition bi yëpp PDS la newoon muy coalition boo xam ni amul benn njariñ bu mu jar sénégal yi joxu leen benn gëdd ak benn cër parce que mosul dox ci seen i soxla lu dul ay xëccee parce que xeex ko xuloo ak wax loo xamante amul kon yaakaar naa tey Ousmane Sonko jot na nag ñoom ñëpp mu déplacé ak ñoom jël seen même responsabilité am pour que fi mu bëgg a àgg mu mais bu yaakaaree ñi dañ koy gën a suuxal li ciy firnde rek mooy ñun bi ñu paree bi ñu jógee pour dox Ousmane Sonko yàlla dogal mu génn si kaso parce que ñaara maanaam ñii dañuy xeex ci justice ñii xeex si beneen côté bi man en tant que kilifa diine ma jëloon initiative pour que dox li nga xamante ni mooy kilifa diine yi pour Ousmane Sonko mën a génn ba ma tàmbali ko mais am na ay nit bokk Pastef yoo xam dañoo refuser loolu catégoriquement ni ànduñu si te ndax fii recevoir naa fi Cheikh Bara Ndiaye wax naa moom a dox mais na ñoo xamante ni Ousmane Sonko nekk si kaso bi moo leen gënal Ousmane Sonko génn. ndax man jàpp naa ne bu ma bokkoon ak moom parti mu nekk situation bi du ma dem jël sama fils parrainage te génnul si kaso te am na ay député yu bokk Pastef ak ñi ko jiite ñoom ñëpp dañuy waxtaan ak waa Bokk Yaakaar am na ay député yu bokk Pastef ak ñi ko jiite ñu si bari dañuy waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar dañuy dugg seen bureau yi dañuy dugg seen bureau yi di waxtaan ak ñoom bu ñëwee Assemblée nationale dañuy tàppanteeg ree fàtte na Ousmane Sonko mu ne si biir kaso bi député yooyu fi mu doon nii man maay seen noonu parce que am na si ñoo xamante ni bi ñu duggee Assemblée nationale ba tey muy Birame Souleye Diop Abbas Fall Guy Marius Sagna duñ tuddanteeg man wax ak waa benn bokk moo la gën a wax ak man kenn du mus tudd parce que jàpp na ni man dañ war a contrôler wala ñoom dañoo war a ñëw nekk sama kaw parce que nag man li ma sëñ Tuubaa defal moom gën a digg te nit ku gëmul sëñ Tuubaa gëmoo yonante jàpp naa doo ñëw assemblée di ma Birame Souleye Diop bi ñu ko nommé mu nekk assemblée nationale war a jiitu groupe parlementaire bi Ousmane Sonko moo ma woo mu ne ma dénk naa la Birame Souleye Diop man maa ko wutal bureau ndax bi mu ñëwee assemblée bureau bi ñu ko bëggoon a jox mooy bureau Mamadou Diop Decroix nekkoon deuxième vice président groupe parlementaire muy bureau bu ndaw fa lañ ko bëggoon yóbbu ndax xamul assemblée. bi ma ko gisee ma ñëw ma ne leen fii du bureau groupe parlementaire Birame Souleye nañ ko wutal bureau bu mag comme ni ñu wutalee yeneen yeneen bureau yi. wutal ñu wutal ko bureau génn ki nga xamante ni mooy jëma soirée mi nekkoon euh, ki nga xamante ni moo toppoon ci euh, rapport commission de finance ñu génn ko moom jëma soirée ñu dugal fi Birame Souleye man maa def loolu Ousmane Sonko moo tax ma def ko pas moom ñu defar ko bureau bi wutal ko ay photos yi defal ko ba mu baax mën na ko toogal fii ci sa bureau de liggéey loolu maa ko def mais ba nga ko defee ba tey jàpp na ni man maay noonam bi sama yaay faatoo sax groupe parlementaire Yewwi Askan si wul ma ko parce que xaw ma lu loolu moo lay wan ne la képp koo xam pare woon nga pour accompagner Ousmane Sonko rek am na ay nit yoo xam ne ñu ngi bokk ak moom taxaw pour yàqal loolu ndax sa diggante ak Ousmane Sonko man mënu nangu état du Sénégal benn bokk yaakaar ay ñoom ab Mbow ay ñoom Sira Ndiaye boo ñëwee si ñoom di tàppanteel ñoom boo demee séminaire si hôtel yi di waxtaan ak ñoom yow ki nga xam nekk na opposition sax boo ko fekkee si taabu doo ko mbir kooku dafa ñaaw moo tax ma ni am na si ñoo xam ne dañuy waxtaan ak waa benn bokk yaakaar. opposition bi def leen ay noonu loolu mooy li am Birame Souleye Diop bi ñu ko jàppee si kaso bi fii laa def point de presse te avant loolu maa dem seeti ko mënuma lépp loo mën a def ba ma génn fii def ko moo ma ko sañ boobu maak Assane Diouf ñoo daje ci tribunal ba ma fa génn laa dem seeti premier ministre Amadou Ba seeti Mame Diop président assemblée nationale seeti président groupe parlementaire Omar Youm ak Lamine Thiam woo Macky Sall woo ministre de la justice woo ministre boo xamante ni auprès des ministres euh, de président de la République Alassane Ouattara fexe ba Birame Souleye Diop génn Birame Souleye Diop waxtaan moo ko génn si kaso bi comme Birame Souleye waxtaan moo ko mën a génn si kaso bi nag warul bañ Ousmane Sonko waxtaan génn ko si kaso bi nit da ngay wax loo xamante lu yan maanaam mais boo fekkee ay nit parvenir pour waxtaan yow nga def loo xamante day tax que ka nga xam moom ngay waxtaan na sax xolam gën a bon wala mu gën a mer ba téye ko kooku yaakaar naa du dimbale Ousmane Sonko ci biir kaso <coughs> Ousmane Sonko dafa war a génn parce que fee mu nekk du place am Macky Sall nu ko génn lu mu gën a gaawee parce que demande sociale la pour mu génn si kaso te danaa def tout pour mu génn si kaso euh, pour A euh, pour B dana bokk mu neex yaa tëdd na génn incha allah balaa lay sonal loolu mën naa ko wax te bu ma ko waxee askan wax na la xam li ma wax. li nga xamante ni moo jëm ci concernant mbirum Palestine Israël. di ñaaw lu taxawaayu communauté internationale parce que Palestine yaakaar naa nii ñu koy def ñoom ñëpp ñu ñu cell jaaruwul di lu taxawaayu Union africaine ak CEDEAO ndax heure bii bi nga xamante ni tey guerre am na diggante Russie euh, Ukraine ñoom ñëpp tey kenn ku ne yaa ngi doon def ay point de presse ak dagg say avion dem seeti pourquoi mun ñu ko def Israël euh, maanaam Palestine mi nga xamante ni suñu mbokk la nekk ay jullit ñu di leen jaay doole te loolu tegul si yoon kon ñoom ñëpp seen taxawaay daf dama koy ñaaw di ko naqal ñaaw ñaawlu si taxawaayu kilifa diine yi de si dëkk bi parce que kilifa diine bu fekkente ne da ngaa nekk kilifa diine nga nekkub jullit sa mbokkub jullit di am ay jafe-jafe ak coono war ngaa jël seen responsabilité ba ñëpp xam ne yow mi taxaw nga si mais gisuma benn kilifa diine taxaw ñaawlu tey taxawaayu Israël jëme ko si Palestine ndax Palestine ay ay julli nan ñu néew doole nan ba noppi ñaareem tooñu ñu kenn Israël jël alalam jëpp ak dooleem jëpp di bombardé bay bombardé bari baytul maqdis tey Gaza tey kenn nekkutu fa daanaka ñëpp dem na lan faray si nit kenn xam nu mu toll mais pourquoi bi nga xamante ni mooy corps cour euh, pénal international mais mënut a lancé mandat d'arrêt jëmle ko premier ministre Israël kii euh, li nga xamante ni mooy Israël bi. parce que jàpp naa ni ni ñu ko def Russie war nañu ko maa def li nga xamante ne mooy Israël ñett yaawoo kon jàpp naa ne deux fois deux mesures yi am lañ ko war a arrêté jullit yi dañoo sonn yéen a yonent bi waxoon na ko amuñu solidarité jàppalantewul dimbalantewul dimbali kenn koo xam bokkut ñoom sama leen leen seen bopp kon tey maa ngi wax Macky Sall ak waa CEDEAO nañu jël seen responsabilité wax ak Israël mu arrêté bombardement yi nu mu gën a di wax kilifa diine yi nañu yokk ay ñaan ba pare nag génn nag ñaawlu naqalu li nga xamante ne mooy li am ci li nga xamante ne mooy guerre loolu képp ku ko ñaawlu naqalu woo pour man doo ko parce que ña nekk ak ñu nekk rek moo yem loolu daal ma ne woon naa toog waxtaan seeg yéen wax leen aussi situation bi comme keroog nañ ko amee woon ci assemblée. député tey waa Yewwi Askan Wi am na xàjjaloo député yi taxawu Sénégal yi génn nañ groupe parlementaire bi ñàkk nañ ñeenti pos ñeenti poste yooyu ñen ñoo si profité mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko jëlaat loolu nag bokk na si manque expérience politique taxaw yi nga xam waa Yewwi Askan Wi rawatina waa Pastef am nañu ak ñàkk gi nga xam ne ñàkk nañ ko mën a diisoo ak ay kilifa yoo xam xam na li nga xam mooy institution parce que ki nga xamante ne moo nekkoon deuxième questeur assemblée nationale muy Aïssa Touré nekk Amérique tey xeexu taxawu moo tax ñu xañ ko deuxième questeur boobu noonu taxaw si Pastef la bokk biñ ko xañee mu naqari ko ñu gaaw toftal ko génn ko foofu dugal ko si vice président assemblée nationale ndax ku ne xam na ne ñu jëm ci ay élection assemblée nationale di am bis vingt trois milliards nga war dem campagne ki nga war a contrôler yow ngay xeex ak nit ba ñàkk loolu kooku yaakaar naa ne kooku boo ko defee da nga xamul la nga xamante ne mooy assemblée nationale ndax même bu doon taxaw sax war nañoo mën a xool ci ki nga xamante ni moo ba seere ba loolu jàll juróom-benn weer yomb naa moom taxawu Sénégal lii ñuy def da leen fay seen bor parce que ci mairie bi génne woon nañ ki nga xamante ne mooy Abbas Fall te teguñu ko si yoon lu dul affaire politique tey fayantoo am na mais man dàpp naa ni kenn wut a fayantoo ci institution bu toll ni assemblée parce que li askan doon xaar si ñoom ba jox leen loolu waruñu woon a tey faye li askan wi te dañ leen a parce que tey jii may wax yow courant bi dafa yokk nawet bi pare na kenn gisagul li gerte gi ñu koy jënd dund gi dafa seer insécurité bi pare na yoon dëkk bi amul yoon yaakaar naa foofu la ñu waroon a xarante rayante suñu xeex ñun ñëpp pour jëm foofu noonu waaye mbaa waaye nag ñu ger si ay poste te gis na ni post yooyu noonu biñ ko geree ñoom ñaar ñëpp ba ñàkk ko benn bokk yaa moo di moo yokk doole ki nga xamante ne mooy Yoro Sow mu dëkk Linguère yokkaat doole ki nga xam mooy kër bi di euh, Aminata Gueye dëkk Saint-Louis yokkaat doole ki nga xamante ne mooy Sira Ndiaye mi dëkk Mbour loolu nag jàpp naa ne ci réew mu normal jaarul ñoom ñëpp boo leen boole tey vingt cinq millions par mois kiite na si yeewi askan wi dem ci benn bokk yaakaar loolu xel jëru ko parce que vingt cinq millions mën nañu ko jël di ko jox peuple bi ko soxlawul kon loolu lu ma ñaaw la lu ma naqal la di ñaaw la aussi taxawaayu benn bokk yaakaar parce que bi mbir mi xewee ñoom dañ see profité bi ñu séddalee am na si post yoo xam dafa waroon delluwaat li nga xamante ni mooy wàllu ndax boo xoolee conscient bi nga xam moom la ñuy séddalee ci pour anam député yow mënuloo am quatre-vingt-deux députés quatre-vingt-trois am quatre vice président assemblée nationale tey nga am quatre-vingt-deux députés amaat quatre vice président assemblée loolu jaaruwul loolu jaaruwul parce que tey benn post vice président bi wàllu moo ko waroon a moom normal bu ñu ko jaarle woon yoon ci séddale bi mais ñun jël yëpp aakimoo ko parce que profité nañ ci situation bi nit ñi sonnoon nañ jamono yooyu noonu xëy na am ñu fa bari ñoo xam ne amuñu expérience tëlkin bi nax nañ leen jël nañ poste yi dugal nañ ko seen biir jàpp seen bopp loolu moo lay wax ne la ba tey Assemblée nationale tegul si kon yéen sama mbokk journaliste yi ma leen di xamal ni ma leen di xamal ni réew mi fi mu toll nag jot na ñun ñu taxaw pour jëlee fi li fi nekk muy Macky ak li nga xam am ci réew mi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey Amadou Ba ñu ngi koy bàyyi muy lambar lambar yi si dëkk fenn fu ne mu dugg te ñun opposition bi ku génn ñu baare la tegul fenn tegul fi am dama ko ñaawlu naqarlu ko parce que nag fi réew mi toll dañoo war a yamale. yow boo nekk candidat Benno Bokk Yaakaar fu la neex dem baara tëli bi bañ na ko sax ba gis naan fan yi dafa saa sax ñi ànd ak ay tenue xam nga tenue marron la Macky Sall yor mais moom ñuul na fi no tenue ñuul xëy na maanaam mu débarrassé Macky Sall balaa yàgg parce que bu débarrassé Macky Sall continuation askan bëgguñu ko parce que bu fekkee dafa dem ci Macky Sall ci régime bii nii ak li nga xam mooy continuation premier tour sax du ko jàll ndax Macky Sall nit ñi dañoo suur si moom parce que toroxal na askan bi jàpp na ni ñëpp tëj si kaso bi ku ma am ndey ku ma amul ndey am na fi lu ko neex def àllu réew mépp caxat caxatee nañ ko loolu nag jot na pour sénégalais yi képp koo xamante ne patriote nga nga bëgg sa réew nga nekk citoyen model nga xeex pour si Macky Sall jóge si réew mi parce que boo ko defuree pour man lu am ëllëg yow responsabilité di woo ndaw ñi nga xamante ñoom ñëpp ñu ngi gàddaay pour génn ndax bi ma defee sama calcul deux cent cinquante mille personnes génn nañ Sénégal dem diggante Europe ak Amérique te ndaw ñoo ñëpp doon génn am na ay carte d'identité am na carte électeur te opposé la waroon a woteel kon ñun partegul nañ deux cent cinquante mille électeurs yoo xamante perte nañ ko jamono ñu toll ni ci ndaw ñuy gàddaay ndaw ñooñu laa bëgg ñoom ñu toog ba jëlee fi Macky Sall ñu delloo si waat yaakaar ba nga xam diwtul mën a dem parce que la ma leen wax rek ci suñu programme un cinq cinq il faut ñu def programme agriculture dak communal kuy bu nekk ñu fa deux milliards pour ndaw ñu mën a toog loolu yaakaar naa bu ñu ko defee ndaw ñu doon toog liggéey Sénégal dana mën a am lu mu dund dana mën a am lu lu mu jaay te malheureusement état bi fi nekk xaarul pour loolu am yenn candidat yi nga dañoo bokkoon benn bokk yaakaar ku si mel ni Mame Boye Diao nga xamante tey bu yoon doon am si dëkk bi dañ ko war a jàpp tëj si kaso fi laa woo yi Géejawaay la mu fa def hangar aéroport bi li ñu fa def loolu lépp ñu taxaw fonctionnaire boo gis mooy dawal oto quatre-vingts millions millions fu la am si ci Sénégal loolu képp ku wooteel maam boo jaw wala ma jox parrainage Macky Sall goojo benn bokk yaakaar te man bu ma jëlee réew mi ñi njëkk woo si yoon dana si bokk parce que gis naa ni ni mu yore woon suuf si jaarul ku si mel ne Aly Ngouille yow nan nga man a nekk ministre de l'intérieur 2019 nga taxaw fii ne Macky Sall képp ku bokk APR dinaa jox sa carte d'identité ak sa carte électorale nga xañ Karim Wade mu bokk si élection ak ak Khalifa Sall ci modification code électoral 2019 article 57 Aly Ngouille Ndiaye moo ko indi maa ngi toog. yow jëf yu ñaaw jooju nga def ko tey Macky Sall tànn keneen nga ne da ngay jël la lépp dara baaxu si kon yow responsable lu mel nii moo tax tey ñu war a rey ñëpp ñoo xam ne dañoo nekkoon si maanaam politique bi giwu bi ñëw rend ñëpp parce que ñoo yàq jikko yi askan jikko yooyu yàqu nag tant ñoom ñi ngi fi insi di fi nekk Sénégal du jëm kanam parce que mënoo lekk si at ak ñaar tey nga ne ndab ma doon lekk baaxul kooku kooku gore la kooku trahir askan wi la affaire ArcelorMittal bi nii affaire quarante cinq milliards big togo carte yi mais loolu Aliou Ngouille da ko war a leeral ak fan la jëlee xaalis bi muy campagne gis nga réew mi yéen ndaw ñi bu leen kenn ndax bu leen kenn divertir candidat bi gën si candidat maa ngi nii mooy Cheikh Abdou Fatou ku bëgg ku baax ku bëgg ku baax ku bëgg ku baax ku bëgg ku soqal réew mi ku bëgg doomu daara ku bëgg koo xam ne musul lekk àllu askan wi mosul bokk si nguur maa ngi nii doomu daar laa boo xamante ne askan rek ma ñor bu ma Macky Sall baaree nag en tant que doomu daara dinaa woote waat ñëpp toog may leen Macky sàll moo bëggul doomu daara excédé au pouvoir dinaa seet le meilleur candidat placé ñu ànd ak moom bu ñu tàllaloo waaye sama première condition mooy Ousmane Sonko génn wala bu ma gañee réew mi ki may àndal mu génn wala man ma génn ko def ko premier loolu laa gëm te dinaa ko xeex ndax jàpp naa ni fi réew mi toll waratuñ képp comme ambition rek ñu tëjee si kaso bi Macky Sall tëj gi ma tëj si kaso bi du ma ko baal mukk wàcc parce que du ma ko fàtte ñi nekkoon Touba yëpp di politique te sant te sant Mbacke ñëpp Macky Sall tëj na si kaso kooku nan ko waxee par exemple da ngaa bëgg gagné wala da ngaa bëgg gagné feneen kon loolu moom laa ni woon dinaa leen woo état civil bi nga xamante ni aussi tamit war nañu taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw pour askan wi ñu taxaw si. di wax aussi nii état na jël ay de parce que kat la mu waxante woon ak ñi nga xamante ñooy liggéey ci mairie yi nañ ko respecté parce que tey ñëpp ñu ngi geraw xale yi nga xam ne ñu ngi war a jàng amuñu ay extrait de licence ñi nga xamante dañoo faatu pour ñu am certificat de mariage jafe na te loolu lépp nag état Sénégal mooy responsable parce que ñi nga xam ñooy liggéey ci mairie ak conseil département yi dañ leen a war a jox seen gëdd dugal leen ci li am na fi. xaalis am na ci réew mi mais dafa demee boor boor bi mu demee nañ ko indi nag ci digg bi ikkite yam ñëpp yem si ñu fay ñu war a fay jàppale ñu war a jàppale Sénégal jëm kanam waaye tant que régime baa ngi fi nag Sénégal du avancé wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh